العالمي خلافة ملكية حلى آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكو نفوس سجية سخطنا مرارا الصفحة الهاشمية بخمسة أنهار تفجرنا من خمسة على محمد يشهد فضلنا وكثر سوانا ليه سيعشر قلنا ولم يلخين الضار في الكتب مثلنا سبقنا به في الحشر من كان قبلنا ومن عجب أن ياس بخلق بالأمس بعد اطلاعه فلا خير إلا في مسير اتباعه سعادتنا مشروطة باتباعه وهل يثبت البنيان إلا على الأسير زورة المختار أحصى مؤملة سأبكي لبعد الدار عنه فإن لي حياة بلا روح وموتا بلا روح مالك تكلفه الأسواق فوق احتمالك فيصدو إذا ضاقت وجوه اهتيالك صلع كل مهموم وهمك حاله فصبرا فكم حزننا يقول إلى عرسه

كله حده فلا أنسني معيز تؤسد لصده شهدت بأن الله أسرى بعبده من المسجد الأقصى رقيا إلى العرش على محمد ذاته بجسم النبي المصطفى وبذاته وفي نبيه لم يختلط بصنعته شهدت بهذا مرغما لصنعته شهادة من له معجزاته لسان الصفا والجنان والإنس والوحش Seck borom ndigal ak Serigne Aada ak Serigne Góora sama turandoo bàyyam bu tedd ba yàlla na ko sunu fan tedd sa ba sunu wóoral woon sunu soppe woon ak Serigne doomi Serigne Mouhamed gi ñëw léegi ah di sama Serigne yëpp sama xarit bii toog di Yaram Ndiaye ñu ngi leen di siyaare di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen dalal jàmm fii ci Kër Ibra Fall am na nañu mbégte lool di ñaan ci yàlla yàlla nañ ko fekkee ay at yu bëree baree bare baree bëri ca mu yokk ay xéewal ban ko fi dalee def ba tey ay xéewal yu yokk rek la ci dëkk bi ah ren jii nag dafa am lu ci am lu yéeme ndax maa su maa Kumba Ndiaye président daa jàpp bis bi man quoi waaw bis bi yéen da ngeen koy def rek du ngay ñaan autorisation danañ dem su sous di ñaan autorisation mun wax nga dëgg de daal di xëy dem ci sous préfet ba mu yeggee sous-préfet ni ko ah man de nguur gu bees gi fi toog damaa laajoon journée yi nga xam ni dañ koy def ay gàmmu ci commune bi dama ko waroon yóbbu dajale naa yëpp waroon ko yóbbu tey kii yow boo ñëw woon seen ah, ma ni ko alhamdulilah mu ñëw ne ko tey jii laa yóbbu la si kon bis bi tey président bu bees bi jot na ci loolu nag xéwal la loolu xéwal la bu nga xam ni ah tey jii bis yi bi am yëpp bis bii moom la ci président de la République jot kon loolu xéewal la waaye lépp yàlla lay def ay gëneel ci kër Iba Fall ak CNS bi nga xam ne ñoo ko organisé président bi nag wax dëgg yàlla li mu def lu rëy la suñu aada bis bii mu leen tànnal bis bu am solo la ci dëkk bi bañ jox dalee def ba tey ay xéewal rek la yokk ay xéewal rek la yokk ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen daayira bi nga xam ne yéen a koy def yàlla yàlla taxaw leen sàmm leen aar leen ba ba li ngeen ci séntu lépp mu am wax ji du bari seen Biral ñun kontaan nañu kontaan nañu fu kontaan commencé ba fa mu yem ci turu El Ndiaye sunu mag ak imam ratib imam Ali Ndiaye nga xam ne mooy sunu kilifa wax dëgg yàlla dëkk bi mooy sunu imam mooy sunu mag mooy taxawee lépp ci dëkk bi yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla ko wax dëgg yàlla ñun ñëpp am nañu mbégte ci moom ku xawle boo gisul imam sa xel du dal loolu nag. ah lu ko yàlla jagleel la yàlla yàlla sàmmal ñu ko aaral ñu ko ba dara du ko def fang sëñ bi daal ñun am nañu mbégte lool ci bis bii ngeen ñu may waa Kër bi Fall gépp nga ko may du taalibe Thiénaba yi rek ñëpp la fii tey kenn desul murid yaa ngi ñëpp a fi teew suñu aas yàlla yàlla sàmm leen yàgg seen aada ak ñu ko seqal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ba déwén ak jàmm ñu jox imam Moustapha Aliou Ndiaye nga xam ne nag fa tabarakallah day wax ci turu imam waaye waxaat ci turu daayir kon ñaari kàddu la yor sallaa ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla la te dëgëral la barke Seydina Muhammad ñu ngi ñaan sang ba nga ziyaare ji woon mooy Seydina Rasulullah loo fa ñaan yàlla ko yàlla nangu waaye ijaaza bi la bàyyi soxna Tijaan ñëw fii fekk la ko yàlla nay sa kiiraay ci barke Seydina Muhammad waaye yàlla na ci jobaas gépp ngir bànneexu

di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi nuyu sang bi yi fi teew yëpp di teg suñu nuyoo ci loxol sëriñ As mu jotale ñu ko ahlu Thiénaba yëpp di siyaare Baye Assane Seck xalifa général Thiénaba di ko ñaanal yàlla fanam gudd lool ci ànd ak wér di ñaan yàlla li mu mébét ci liggéeyal ko kër Seexu Thiénaba yal na ko ko yàlla jàppale ba lépp mag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi siyaare bokk yi fi teew yëpp di jiite ci siyaar bi waa dëkk bi rawatina ndawi dëkk bi sëriñ bi ñu ngi sàkku nga doon ñu ñaanal ndawi dëkk bi comme ni ko pam bu waxee ci woy bi dëkk la boo xam ne dañu tënk ci waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraxu dëkk bi amul tariqa boo mën a ràññee ci xew-xew bu fi am ni xew-xew bii tariqa sàngam ñoo ko xewle ku ci xewle tariqa ba xewle yeneen ya ca des ñooy liggéey liggéey ba mu mat loolu nag la yàlla def ci dëkk bi ba ku fi ñëw xam nga loolu kon ñu ngi sant yàlla bu baax waaye di ci sant mag yi dëkk bi nga xam ni ñoo tabax loolu yàlla bu ci seytaane am yoon rawatina waa daayira Baye Fall tàmbalee ko ci góoram mi nga xam ne mooy seen président ak ko aju ci seen tur ndax tànt bii ngeen di gis mën naa wax ne ñoom ñoo fi jiitu ci tànt bi laatu ñuy gis benn taalibe boo xam ne bokk na kër Cheikh Thiénaba ñëw nañ fi ba taxawal poté ba pare te gis ñu kenn koo xam ne bokk na ci daayira bi taxaw si loolu nag du ñu man lu dul sëñ bi di ñaan nga ñaanal leen yàlla pas-pas bii ñu am ak booloo gi ñu am yàlla ñu leen yàlla fayal président ñëw na si di ma limlu ay tur di ma góor a jaay ak mbaaj góor a mbaaj jéey ma ni leen ñoom ñëpp ñooyam kër Seexu Canaba kër Seydina Limaamu kër Sëriñ Touba kër Seex Ibra ñëpp kenn ku ci nekk xew-xew bu amee ci dëkk bi pas-pas bi ak taxawaay bi benn taxawaay lay doon yàlla ñu leen yàlla barkeelal rawatina jigéen ñi dëkk bi di ko commencé ci président Ndeye Ndoye ak Makumba Ndiaye seen pas-pas ci biir bi moo tax bis bi am waaye ku ne xam na diggante korité ak tabaski ku ci doxalee organisation bu toll nii loolu njàmbaar nga njàmbaar goo xam ne ak pas-pas rek moo ko mën pas-pas moo ko mën kon Makumba yaag Ndeye Ndoye li jiite daayira bi ñu ngi ñaan sëriñ bi nga dolli leen ñaan yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay sant nañu ñëpp waa dëkk yi ñu wër yëpp kenn ku ne gis nañu sa taxawaay loolu nag amuñu seen pay lu dul wax leen jasakumullahu xayran li bi sallallahu alayhi wa sallam wax nit bu la defee lay yiw da nga lott ci fay ko yiw woowu nee ko jasaakumullahu xayran waaye ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayran rawatina ñi nga xam ne ñooy waa daara ji nga xam ne ci bëccëg ñu julee tisbaar lañ jëkk a wàcce fi al alquran te lu jiitu loolu am nañu sunu doom joo xam ne muy ngañ ba mu yégee bis bi la dal di wàcce lu daara kaamil alquran ca daaraam jagleel ko bis bi ngañ ñu ngi lay sant li nga xam ne li nga ñaanoon lépp suñu borom nangu ne ko ci bis bi yalla nañu yalla fay ñu ngi sant ci Thiénaba ba di diko tek ci loxol sëñ as ak loxol sëñ adam gis nañu ñëpp ndax damay wax ni Kër bi Fall ni fi ba di ñëwé amul benen ndaye bu may dem bo xam dana fekk ba ñëwé non kon nak sëriñ as ñu ngi lay ñaanal yalla yaag sëriñ adam ak ñi nga andal yépp yalla nañu leen yalla fay ci seen barkement li ngeen di liggéeyal maam Ahmad dak set di ko liggéeyal maam tala, di ko liggéeyal ahlu ba yalla ne yalla fayal ñu leen ndax ñun mboolem kilifa ko fi nekk bari na ci ñu fi fekkee waaye seede bi ñuy seede ci yéen benn seede la mooy taxawu kilifa ku fi nekk ci seen wet ba lépp mag kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di sant ñi nga xam ne bis bi ñoom lañ ko jagleel ndax li ñu mébétoon daaw bi ñuy def bis bi mooy ñaan yàlla sëñ Maodo Seck teewe bis bi jootal kaddu yi kaddu yi mu daan kat kat sëñ Maodo borom xaal la boo xam ne fu mu musaa waxee rek kenn ku nekk da nga yëg sa bopp kaddu goo xam ne fa tabarakallah loolu la ñu waaye yàlla subhaanahu wa taala ñëw ak la ko soob waaye jógu fi ndax njabootam yëpp ñëw nañu njabootam yëpp ñëw ñu ngi leen di ñaanal yàlla fa mu tëgg kenn ba yàlla na xabroom nekk raw rawdun milliards yi jënn ci barkente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ku baax ku mën a delloo nit ci yàlla koo xam ni xaalam amul fu mu yem kon nag ñu ngi koy jëf ñu ngi koy ñaanal yàlla ci barke bis bi ak ci barke maamam yàlla ñu ko yàlla xaral aljanna firdaws ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam waye njabot gi fi bàyyit yalla yalla watul len ci def len mag barkel len waye xali li ngeen def barakallahu di sante yi parents yi nga xam ne la ko jegal muy euh, mam mam ki ki Ndiaye alaaj Ndiaye alaaj Ndiaye mom lañu xale yi lon bis bi def ko prince ak suñu benn jigen bo xamni ne bëggul sax ko ko tud ndax mom li du problème muy aja aw geey bu bu bu moom bi ko ko waxee dafa waxoon yaa man de imam Kër Ibra Fall daanaka su ma fi dee ñëw yàlla ak Samba Diaw moo tax waaye wax dëgg yàlla loolu bokkul ci li nga xam ni moom ndax jox nañ ko cër bu nekk nooto pour pour defe ko preneen waaye mu delloo ko kon nag cofeel gu mu am ci ñun mooy waral chaque bis bu ñëwee mu ñëw fii indi fi teraangaam ji doy loolu moo waroon xale yi jël bis bi ba ko dëppee waaye teewul bis bi yónnee na fi teraanga joo xam ne barakallahu defar na bis bi soxna Adja Awa di sant Alaaji Njaay di ko ñaanal service am yal na ko yàlla gën a soqali ba lépp loo xam ne yéene na ko ci yal na ko yàlla mottali sëñ bi daal ñu ngi sant bu baax di sant chef de village daanaka kaddu yi fi góor a yëkkati woon doyen na sëkk sëkk ci ñu jotal kaddu waaye dafa tolloo rek fa tabaarakallaahu euh, loolu mënul ñàkk ñu ngi sant yàlla bu baax di leen jërëjëfal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla may ñu fekk waat ko beneen dé ci barke Momar Cissé ah, mu sis Momar keur muso Kër da fay yable wala dafa da fay yable délégation mo nek ni kon ñi koy recevoir nañ dama am bi nuyo bo xamne mako ko ma bëggo na xaar ba lepp ni tek ma duggal ndax ñooñu nak ñoy borom tante bi té suma ko waxé yeen ñëpp di nga xam ne ñooñoo moom tànt ngi nuyu soxna fat Diop bu sëriñ borom digal yegg si na ànd ak soxna Yaasin Fall waaw ànd ak soxna Yaasin jóge Canaba fekk si nag rakkam soxna Faama Ndiaye macha allah nga xam ne yaakaar naa ni tante bi moom seen tante la bis bi seen bis la mbooloo mi seen mbooloo la ñu ngi leen di nuyu di leen ziara soxna Faama yàgg soxna Faatu di leen wàcce ci seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla liggéey bi ngeen di liggéey ci ëttu sëriñ bi yal na yàlla fay leen ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu leen gisee ñun ñëpp suñu xol sedd na loolu rek mooy wane ni li yàpp am lépp wan na ko ñeex waaye li sëriñ bi am lépp andi na ko kër Ibra Fall te noonu rek la war a demee kon maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla na ngeen yàgg a teew yéen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon su ko defee ma jël kàddu gi xam naa nag leen mu jeex ma jël kàddu gi jox ko nga xam ni moom lañ tuddee bis bi El Hadji Ndiaye tey bari ngeen El Hadji Ndiaye moom lañu ñu parrainé bis bi fa tabarakallah tuddee ko tàkkusaan gi kon mën nañoo jël kàddoom ana El Hadji soxna Diagne Sall moo ko fi teel waa kay ak na programme ñun dañuy jàllale rek kon ñu jox président Souleymane Gueye président fédération du daayira bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما إنه يفتي يب. ديجيتال كنيو بي خليفة جنرال بوشانابا. باي سرين أسان سك. يالنا كفي الله يعقل تويرلكو. جلنيو فامي مام أحمد الدار يب. تك كتير لخسرين أسك برم ديجل. مجالل نيو كتير واجي كن يب.

képp koo xam ni teew nga ci tànt bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay fekk fa nga toog jox la loxo di nuyu fédération nationale des daayira tijaan bu Thiénaba bi nga xam ni yàlla def na man maa ko jiite ma ànd ak sama nattaango yi nga xam ni sama ginnaaw secrétaire général mi ngi ci kaw tribune bi ak trésorier ak présidente fédération bi ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu soxna Faat Diop bu sëriñ Asek borom ndigal ak soxna Fama di len jox sen waccu wàccuwaay yëpp waye nak di nuyu president daayira keur Ibra Fall Serigne Makumba Ndiaye gaynde gi diko jox waccu wayam djel nuyu góori daayira bi yëpp teg ko ci loxom di nuyu soxna Ndeye ndoy mi nga xamni moy president présidente bi djel nuyu jigen ñi yëpp teg ko ci loxom di wax ni yalla nango ko teewee nag ni déwén heure bii daaw taxawoon nañ fi ñaan ko yàlla defal ñu ko yàlla nañ ko yàgg a fekke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu autorités yi nga xam ni ñoo fi teew yëpp ak ñi nga xam ni yàlla def na ñoom lañ tudde bis bi Serigne Alaaji Njaay mi nga xam ni moom mooy pare bi waaye di nuyu tamit soxna Awa Gueye di secrétaire municipal bu Noto Diobass di sama xarit ñu xamante seqoon ay liggéey yu baree baree bare maa ngi koy nuyu di ko jox wàccu waayam di nuyu délégation bi nga xam ne moom la àndal yépp ñi nga xam ne dañ leen di rendre hommage tamit ci bis bi ñu ngi leen di nuyu di jël nuyoo yooyu teg ko ci loxo Serigne Sada bu Serigne Maodo Babacar mi ngi ci kaw ànd ak ay rakam yépp ñu am kontaan bu baax di ñaanal Serigne Maodo Babacar yàlla na ko yàlla gaaw dëkkal àjjana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne As ñi ngi wax ni daayira kër yàlla def mu nekk daayira boo xam ne ci fédération nationale des daayira tijaan bu Thiénaba ci la bokk chaque année nag su ma taxawee fii dinaa wax seenu njàmbaar ndax man en tant que président damay def rek képp ku xewle bu ma ñëwee ci yow dinaa la évaluer xool sa liggéey ak sa taxawaay bi nga xam ne moom nga am ci fédération bi waaye yaakaar naa ni lu mat ñeenti at ba juróom jëm juróom benni at bi ma jëlee drapeau fédération bi jox koo Kër Ibra ba léegi gisaguma keneen ku ko ku ko jël gisaguma beneen daayira boo xam ne ñëw na fu xarci ko ci ñoom kon seen taxawaay ci kër Seexu Canaba seen taxawaay ci programme yi nga yi nga xam ne mi ngi am ci kër gi yëpp seen taxawaay ci mobilisation ak lépp loo xamante ni Serigne Assec woote na ko wala lépp loo xamante ni Serigne Canaba woote na ko kër Ibra Fall moom moo ciy man kon Serigne Ass loolu maa ngi la koy seedeel di jaajëfal encore ki nga xam ne moo jiite daayira bi muy Serigne Makumba Ndiaye yàlla na yàgg jiite daayira bi jiite bi rafet na ni ñu taxawee rafet na di sant daayira bi nag ñëpp muy góor di jigéen ñi ngi wax ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck bu bàyyi Serigne Mouhamadou li mooy dugg si noonu di magi Serigne a Seck borom ndigal mii mi ngi noonu di ñëw ànd ak El Hadj Pape Mor di sama xalifa di xalifa tafsir Maam Mor Gueye waaye ànd ak Serigne Madike Seck

di santaat bu baax Serigne Makumba ak Soxna Nday Ndoy mi nga xam ne ñoo ko jiite waaye di sant suñu bàyyi Serigne Aly Ndiaye ci euh, encadré bi nga xam ne encadré na leen ko di wax ni lañ daan wax rek ñun ñëpp nañu jàpp ndax yoonu Seexu Canaba moom ñett yii la mooy àll ba àll wa allahu akbar te ci ngeen di dox gis nañ mobilisation yi ci képp koo xam ni woote nga suukaru koor bi ñëw ngeen mobiliser ngeen def neen na ngeen war a def conférence suñu aada bi taxaw ngeen ci ni ngeen ci war a taxawee sëriñ baa ngi leen ci sant bi ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla yàlla nañu ko teewee dëgg di déwén sëriñ As nag joxe benn ndigal boo xam ni ci fédération bi la jëm bëgg ñëpp déglu ma bëgg ñëpp déglu ko ndigal loo xam ni sëriñ As Seck borom ndigal en tant que responsable moral moo ko joxe ndax kenn ku nekk xam na ni bu ñu yàlla yóbboo ba gàmmu jot gàmm gu magga fédération bi yëpp benn tànt la ñuy daje di fa gàmmoo chaque année ren nag sëriñ bi joxe ndigal nii tant bi ren fédération bi dañuy am ay tenues tenues yoo xam ne ñëpp ñoo koy nuróole loolu nag mu joxe ci ndigal ni na ñëpp copier ci waa kër Ibra Fall seen veer blanc bii ñu def képp koo xam ne jigéen daayira ak daayira boo mën a bokk bu ñu yàlla yóbboo ba ca gàmmu jigéen ñi nañ def vert blanc góor ñi nañu def vert blanc góor bu ci mën a def sabadoor teg ci sa kol bu balaa nag euh, baax na waaw wala nga jiital ko ñëpp daal nañ ko waajal à partir de maintenant di sant ñëpp di gërëm ñëpp président Macoumba waxoon na ni nañu ko santal Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall jàpp na ci bis bi nam ci war a jàppe ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla Serigne Assane Baye Fall président Macoumba ak ñi bokkal waa Kër Ibra Fall ñëpp nee na moom it ñu koy sant jàpp na ci bis bi taxaw na ci Serigne Ndiaga Mbaye moom tam kazalika taxaw na ci ñi ci war a taxawee Serigne Pape Mbaye moom it taxaw na ci bis bi ni ci war taxaw taxawee def ci ay teraanga yu yu bari Serigne Alaaji Njaay mi nga xam ne mooy parrain bi wax nañ ko sànq moom tam taxawaay yi nga xam ne war na ci taxaw taxaw na ko waaye euh, soxna Awa Gueye mi nga xam ne mooy marraine bi nee nañ teraanga yi fi indi daanaka lépp defar na bis bi ñu koy ñaanal lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén barke neen bi sallallahu alayhi wa sallam président ne neen ñi ngi sant préfet département di sant sous préfet euh, di sant commandant brigade bi nga xam mom mo nek fi ci Noto ak ñom waye di sante euh wa keur ibrahim Fall ak tundu yi nga xam ñoko wër yëpp dëkk yi nga xam ñu ko wër sante na leen gërëm leen ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu aouzu billahi samihi alim الرحيم بسم الله خير أسماء الله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 على سيدنا محمد سيد البشر وشفع المشفع في المحصر ورضي الله عن كبريت الأحمر تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن سيد أحمد التجار شريف وجزى الله عن جدنا ووالدينا ومربنا مام أحمد ناكسك وآله وتلاميذه ومقدمه إلى يوم الدين موكي كير إبرافال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa kaddu gu gàtt lay doon ndax kaddu yi teraanga la rek ñii ci kaw danoo baax rek wax dëgg yàlla te ñu jox ñu ko waaye incha allah du gudd ñoo ngi sant yàlla mi nu baaxee jëmm ju toll ni Seydina Muhammad ñoo ngi gërëm yàlla mi nu may Seydina Muhammad te muy teraangay adduna di teraangay allaaxira te Ibnu Muhayyab waxoon ñu ni hadallahu fi daarayni an kaana sayyida Ibnu Muhayyab nee na duna kenn rek mooy ab sang mooy Seydina Muhammad yowmal qiyaam it bu nu fa demee ba ñëpp teew benn sang fa nekk mooy rasulullah yàlla may ñu jëmm ju tol noonu moom la ñoom pap doon way léegi te ibnu muhayyib waxoon ni aruuxu ala zikri nabiyi waxtati boo ko bëggee dégg neen aruuxu على ذكر نبي واعتدي على ذكر نبي ibnu muhayyab nee na sama xëy mooy julli ci rasulullah sama ngor mooy julli ci sayidina muhammad amuma leneen lu dul loola lan moo ko waral cofeel gu ibnu muhayyab am ci yonent yàlla muhammad bàyyi fatima bàyyi roqaya maami useyno xasan sayidina muhammad moo taxaw ni képp ku ma bëgg ëllëg yowmal xiyaam maag yow ñooy ànd àjjana ibnu moo ibnu moo ba wax loolu mu ne wa arju wa arju mu ne wa arju li tax may xëy di julli si rasulullahi gont di julli si seydina muhammad ñu ni ko lan moo tax mu ne narjo damaa yaakaar ñu ne ko si koo yaakaar mu ne bihi ci Seydina Muhammad saraytu ila madhi nabi Muhammadin narju bihi takrima mawridi wa arju bihi fil hasri takrima mawridi mu ne wa arju maa ngi yaakaar ma ne wa narju ñu nag moom ñoo ngi yaakaar Seydina Muhammad ëllëg bu yàlla dekkilee jaam yi ba bàyyi daw bàyyi di daw doom yaay di daw doom ba bàyyi Fatima ak Roqaya yaakaaru jaam yi Seydina ba njañ yay daanu ibnu moo yëm ni ngi yaakaar teraangay Seydina Muhammad yawmal qiyaama maratu bi qalbi wa ayni taxaw ñu joomi bàyyi Fatima ak ñu kaw ñu màggal Seydina Muhammad ibnu Muhayyab mu ni malatu bihi malatu bihi xalbi ibnu Muhayyab nee na sama xol bi feesal naa ko dell ak bëgg rasul waaye ibnu Muhayyab nee na xooluma kenn gisuma kenn ku dul rasulullah ibnu Muhayyab nee na digluwuma kenn ku dul Seydina Muhammad wa admaytu mu ni wa wa admaytu di nga jege rasulillahi si tudd gi may tudd Seydina Muhammad sa suma tuddee rasulillahi baayu Fatima ak Roqaya day ñëw si sama wet ànd ak man mu ne pourquoi pas ana soppay rasulullah ana ñu bëgg Seydina Muhammad mu ne pourquoi pas mu ne walillah lan moo tax duma am loolu Ahmed sa turandoo Ibou Mouhoyeb nee na Ndiol Màkka am na ñeenti mbir si ñeent. mu di nii ah on li ma leer loo. Ibou Mouhoyeb nee na képp kuy wut leer kuy wut ak taa ak leer jëlal rasulullah. kuy wut borom xam-xam bu ànd ak saset jëlal Seydina Muhammad. waaw li ma leer ابن مهير نينا كايما واهلا لوي جنبك جنبك كو رسول الله يا ايها وروح لمن يقضي نينا لو سن سن سغروب يقو عندك رسول الله ابن مهير نينا على ايه على ابن مهير فاقبلوا مني فاقبلوا ما جخل الله يبيرغو حمنتني من ابن مهير مرشد لا يدير جي جندي جامب دوغل كو اجنا موي رسول يسيح الى nee na képp ku ne da ngaa baax da ngaa bëggoon Seydina Muhammad. Ibnu Muhayyib ne Ida Sittumu. Ibnu Muhayyib nee na Ida Sittumu boo leen bëggee. ngeen am yéen ñu sopp Rasulullah. ana ñi bëgg a dugg àjjana ëllëg yawmal qiyaam wuyu leen Ibnu Muhayyib. Ibnu Muhayyib nee na saru bàyyi leen. bépp soxla te joone rasulullah nee na joobe rasulullahi mooy yoonu àjjana soobu mooy pee minel najmi ahda bi jiw nu mu leer leer bàyyi Fatima gën koo leer. baay ak yaay lu nu bëggub njaboot du nu dab rasuul. Muhammadu eh, Lamin jamilun. bàyyi Fatima jamilun moo rafet. Ahmadu waaye jalilun dafa ànd ak وين انا في القلوب محزم سني خرج المكاك وفير به الارض مسهول المريض المبهج نانا ادنا نجل تير ادنا نجل باغتي سيدنا محمد تبعنا انا دي بك رسول الله انا صفي سيدنا محمد سري ابن المهيب من اخبار فاطمه بايو روخي يا كارو جامي نفتاح الاجابتي بايو فاطمه روخي جد حسين وحسن سيدنا محمد تبعنا للترى بروح ابن مهير بن بن الكبير مسح رسول الله يا رجوع يا رسول الله بمدح رسول الله لأن تقي سيدنا محمد نفقس جمله nee na booy woy jëlal sa adduna di tagg rasulaay bu la neexee def ko nasmu bu la neexee def ko nasar yëpp a baax. waaw ana ana ñu bëgg rasulullah ana ñu sopp Seydina Muhammad. mu di jërëmul yàlla yéen ñi bëgg rasulullah ku bëgg yàlla gërëm la del joobe rasulullah bul taayeel bul découragé del joobe del woy baayu Fatima ak Rokhaya cere eh. eh. baa ngi naan borom jub ji mooy rasul amet ah, kadi teraanga la jërëjëf mooy xaritu yàlla mooy soppab yàlla moom la yàlla joxum xel moom ibnu muhayya sallallahu alayhi wa sallam mooy borom xel mooy borom xel mu rafet ni mooy kanu yaakaar yawmal qiyaam dëgguma faral basu mahbub walal baabu murtajo walal basu mahbudum ala ni bëgg rasulullah ko tàllal loxo yonent yàlla Muhammad falal basu mahbur yonent bi du ko delloo walal baabu murtajo ku wuti yonent yàlla Muhammad mu ne nadat mooy borom tab billahi moo jub moom rasul gàkk gàkk xoli njol makka ko raxaat jërëjëf Muhammad الأجمع أمين في أرضه والسماء يا على تصديقنا باستوائه يشق علينا الحيش دون لقائه Taala nee na naan da ngeen xàmmee ñaari baat baatu def ak baatu defal da nga naan diw àndal ak diw mu ne du moom xanaa xamoo li may def diw bàyyi diw mu ne ko bàyyi xanaa xamoo li may defal Serigne As Serigne Aada lii ngeen ma defal tey xam naa ko xat na waaye seenu mbaax la moo tax rek ngeen sédd ma waaye doyloo woon nañu kàddu Serigne Adam ak ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah. Serigne As nee na kàddu yi nag ngeen taaxir lu des na lu bari nee na sunu kilifa yi toog diis na ci ñun lool ñu toogandoo ak ñoom ba bis bi jeex loolu nag dafa diis ci ñun sunuy waajur lañu. sunuy kilifa lañu sunuy yaakaar lañu dañoo bëgg daal damaa bëgg man mii maa koy njëkkee ma bëgg nañ ma indil addiya ma sama sang bi toog nee na lépp lu ma waay jox bu ko yéem ëllëg yàlla dina indi lu ëpp loolu ci yow ku jëf lu baax yàgg yàlla waaw góor la la ku jëf safaan ñu balaak yàlla damaa defe dañuy wàcc fee tey jiw bu fi amee rek dana koy gërëmee suñu rakk yi ci kaw dafa sonn lool ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ñëw fii ndax xam ngeen ni wax dëgg yàlla man a sëriñ ma liggéey at mu nekk dañuy ñëw dañuy teew wante sëriñ Cheikh moom daf naa mosu leen mosu gis loolu nag càkku teefu sëriñ à sec borom ndigal la moo ñu woo ñun ñëpp kenn ku nekk mu ne la na ngeen ma dimbali ba tey sama mat ji na ñëw teew ci tàkkusaan bi fekk ñaan yi ñuy ñaanal sëriñ Maodo ndax xam ñëpp xamoon nañu diggante bi ak sëriñ Maodo tabarakallah kon njabootu sëriñ Maodo gi ci kaw ci leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla maxaama yi seen bàyyi toogoon yàlla ñu fa àgg te toog ca ci barkam sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sunu rakk yi tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo defee bu barkeelu tuuti rek def ko muy suñu aada yàlla sa teewaat déwén i déwén fekk ko ci barke sallallahu alayhi wa sallam donc nuyu imam yi nuyu président daayira yi président yi nuyu invité yi ak pare yi ak pare yi fa tabarakallah bi hubbi rasulillahi narju jiwaarahu kenn sayyidina Muhammad alayhi wa sallam بحب رسول الله نرجو جواره كم تصيبنا محمد ألهي يا عمري في الحال سمعت به الهوى وأتعته كأني لم أعرف نبيا عرفته لكل كتاب للنبي ننعته كأني اتلقى محمد وقد مر معه على النبي إن شاء الله محمد Até. ndigal sa borom boo ko nuyoo boo ko nuyoo ci ko xam daal mat na sëkk ñu ngi lay nuyu Oustaz ku jeex tàkk ci Seexu Canaba te ñun ñëpp xam nañ ko te ñun ñëpp ko bokk xam ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a dëgëral ay tànkam te nag na ko ko ñaanal de. yow ñaanal nga waa kër Ibra Fall yëpp. ñaanal nga waa tudd yëpp. ndax tey jii kër Ibra Fall dong mu nekkoon. Tijaan yaa ngi fi. Xaadir yaa ngi fi. Laayeen yaa ngi fi. ñëpp a ngi fi. waa Tiwaawan a ngi fi. kon tey bésu lislaam la. bésu lislaam nag ñëpp ko bokk sunu xol daal sedd na waaye sunu yaakaar gën na dolleeku tey jii waa kër Ibra Faal dañoo def lu rëy lu rëy rëy rëy moo tax sëriñ As dogu ci rek ma ñëw ren ndax xam naa sama diggante ak sëriñ Maodo dara ump ci dara ump ko ci. ñu bokk baay ba pare. ñu bokk baay ba di ay xarit. di ay xarit. maa boole ñu. maa ngi boole boole goo xam ne. boole goo xam ne. mënuma ci dara. mënuma ci dara. sëriñ Maodo mënu ci dara. sëriñ Maodo mënu ci dara. ñu ànd ba tay. ñu ànd ba tay. ñëw ci tund wi. ñëw ci tund wi. Kër Ibra Fall. Kër Ibra Fall. ak li ko woon lépp. fa tabaarakallah. bu ñu leen fi fekkee nag. day mel ni dugg nañ kon loolu. kon loolu. bu ngeen ko defee. delloo ko lépp delloo ko lépp. di ko ci ñaanal di ko ci rendre hommage ñaanal ma ko gis bi. wóor na ma ni ndax wóor na ma ni. Serigne Maodo moom Serigne Maodo moom. demul fenn mi ngi ci jotaay bi. boo mosaan gàmmu gàmmu bàyyi mu wut lii. boo mosaan gàmmu gàmmu bàyyi mu wut lii. danaa ma sa papa ñëw na tey. danaa ma sa papa ñëw na tey. ñëw na ci gàmmu gi ñëw na ci gàmmu gi. waaye tey jii waaye tey jii. Serigne Maodo Serigne Maodo Babacar. teewul fii teewul fii te mi ngi fi. fa tabarakallah maa ngi nuyu nag sëriñ Yaas bu baax a baax nuyu doomu ndeyam sëriñ Adama Seck mbay sëriñ Taraxa ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nuyu sëriñ Góora Mbay Cheikh fa tabarakallah nuyu Baye Madika Seck bi ma àndal ak El Hadji Papa Mor Gueye mën na maa lim ñi fi ne ñëpp xam naa leen. waaye nag du ko jar. waaye na ñëpp. waaye daal jàpp nañ sama xol tudd na yéen ñëpp. nuyu waa kër Serigne Maodo. nuyu nag sama waa kër bi waa kër Serigne Maodo. ñoom ñii. nee na ñoom ñii. Serigne Maodo. Serigne Maodo. da leen a yërëmul woon. da leen a yërëmul ni. xamoon na ni. tey dina ñëw. tey dina waaye lu mu a def. waaye moom lu mu ci war a def. ci doomam yii. def na ko. man mii ma teew mu ne ma Serigne Cheikh mu ne ma Serigne Cheikh mu ne ko Seck ma ma doom mu ne ma doom boo ko yërëmee mu ñàkk boo ko yërëmee mu ñàkk soxna soxna boo ko yërëmee mu mu ñàkk taalibe taalibe boo ko yërëmee mu ñàkk ndax lan ca war a def ndax lan ca war a def mu sedd mu sedd ñoom ñii ñoom ñii sëñ Maodo leen woon sëñ Maodo yërëmu leen woon loolu moo tax loolu rek moo tax fu ngeen teew ngeen teew ñun bu dul woon ak sëriñ As bu dul woon ak sëriñ As ci dogoog ma ñëw ci dogoog ma ñëw wóor na ma ni wóor na ma ni rek dara du ma fa tabarakallah ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal lii rek lii daal mooy ak yokkute mooy ak yokkute ci këru diine lii rek lii rek bu dul lii bu dul lii yokkute amul yokkute amul ñëw fanaan fii ñëw fanaan fii wala nga am fi juróomi waxtu wala nga am fi juróomi waxtu di tudd yàlla di tudd yàlla jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ah loolu doy na jigéen ñëpp naan góor ñëpp naan ngeen dellu ah loolu nag ci lépp ne kër Ibra Fall nag ñoom nag moom ñu leen fay boo demee bëgg nit bëgg nit muy sa sëriñ nga dem ba fab sa doom jox ko ah mënatu laa fay na waaye de ñu a leen di a ñu ngi a di gërëm kii ngeen di jox muy soxna Fama Ndiaye gërëm nañu ko gërëm nañu ko bu baax a baax kërub diine kërub diine pencum diine pencum diine boo fa duggee boo fa duggee kenn jàjju la kenn jàjju la kenn néew la defal lii ay at ay at fa jóge ah kooku nag fa nga jóge yar nañ la yar nañ la teg nañ la fan la war a teg ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm suñu kër gee la ko war lépp soxna Fatou maa la ca ka mu fekk si muy soxna Fatou Diop météo muy soxna Fatou Diop yem na ci loxo yem na ci loxoy sëriñ As kon daal fu ma mën a ne ci kër gi bala maa tëdd dina ma andil ataaya te nag du attaaya yi de yu xale yi coono yi ah attaaya VIP la yu attaaya VIP la ma ne ko waaye faama jërëjëf waaye loolu nag faaw ngeen ko yëg nag gërëm nañu ko sant nañu ko suñu xol sedd na li ne suñu xol daal mën nañoo génn rek moom mii koy denc muy sëriñ As fu ma mën a ci kër gi lu mu ruqe ruqe ruqe lu mu togg ne sëñ Cheikh yëppal ma sëñ Cheikh lii yëppal ma de. bàyyi ma def sëriñ As bàyyi ma na. mën nañoo ko gisee lool mën nañoo bu xëyee na ci boppam waaye umpante wu ci dara. man ko yow daal li fekk yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah man daal sama xol sedd sama xol sedd na buy fa tabarakallah tey daal ñëw gi moom ñëw gi daal yëg nañ ko ñun ñun daal yëg nañ ko ñun yëg nañ ko bu baax yëg nañ ko bu baax a baax a baax waa kër Serigne Maodo nee na nag waa kër Serigne Maodo kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen suñu xol sedd na nii rek la nii rek la Serigne Sall góor gi dañ daan ànd mu dal ci kaw kenn mu dal ci kaw kenn daa gaa war a tàng ndax na moom daa gaa war a tàng yoo xam ne ma bu ma tàngee. day xam ne bu ma tàngee. yow doo ma doo yëngu tàng naa. yow doo yëngu tàng naa. ah man ko man maa lay saral. man man maa lay saral. mu tàng ci ñoom. mu mu tàng ci ñoom. waaye comme ci doon. waaye comme ci doon. da ko naan Maodo sëñ sëñ papa. dana ko papa. waaw teg ma jaay. waaw teg ma jaay. oh. papa jaay ma. papa jaay ma. ñu ngi may dégg. ñu ngi nii ba dégg. mu daal di sedd guy. mu sedd guy. mooy loolu wax li mu wax naan du ma lay yërëm. mooy li li ma lay wax naan yërëmu la. bëgguma nga ñàkk ndax bëggul ñu ñàkk ëllëg fa tabarakallah yàlla àggale leen di jaay Seydina Muhammad sunu xol daal dafa sell li ñuy ëmb lépp mënta génn daal doon feeñal sëriñ àdda kër jëm jara jëm kon sëriñ bi def ñu ko ñaan rek mu daal di nangu leen ñaan sëriñ Cheikh ñaan bàyyi fi الصراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو يستغفرك ويستغفرك ولا عنده ما تعلم أنت الذي يقع عنده إلا علمه ولا بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع في السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء لا إكراه في الدين بين تبين رشد إلا فإذا لم يكن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها ولا انقسام حمل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره قوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا نبكي يلا نبكي برتقل هذه خيرا كن كن من عندنا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 di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi chef de village bi di ci teg imaam borom jumaa ji su ko defee dañuy yóbbaaleel bi ñepp bàyyi wuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di jeg leen nuyoo Serigne Macoumba Ndiaye mi nga xam ni mooy président daayira bi ak soxna Ndeye Ndoye mi nga xam ni mooy présidente yi yaakaar naa ñooñu bu ñu leen nuyoo dinañ yóbbaale ñépp macha allah saa saa li ngay jërëjëf ñu ngi lay jagleel nuyoo ndax cër bi la Cheikhou Thiénaba jagleel la ci biir kër Cheikhou Thiénaba njaboot nga woon naka jekk di mbokk waaye la ñëw firndeel waaye Cheikh Tidiane ñëw ba fii bind ijaaza teg ko ci cër boobu ñooñu la koy joxaat waaye di nuyu mbooleem ñi ñu àndal di jiital ci nuyoo bi Serigne Assek borom ndigal di ko ñaanal yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla def jotaay bii ñu def waat yu bari lii rafet na lool at mu ne ñu def ko mu am solo lool waaye nag waxtu wu ñu toogee suñuy kilifa ñëw fekkaat ñu ci li ñu dox day am nit lu ñu jàngalaat ndax dañoo nekk ci li ñu war a nekk rek bu fekkoon dañoo nekk ci leneen ñoom du ñu ci mën a fekk ñun sax duñ bëgg ñu fekk ñu du dëgg kon ñu ngi am di ñaan yàlla na yàlla jëmee ko kanam di jagleel nuyoo sëriñ góor Abou Baye Cheikh Ahmad Tidiane ñoo ànd ci yoon wi ñëw at mu ne nii la yàlla nañ ko def at yu bari muy waajal bésu Baye Cheikh Tidiane bi Pape Abdoulaye Mbow wax na ko léegi di le premier ñu ciy woo ñëpp Baye Cheikh moom ñëpp ko bokk bésam bésu ñëpp la kon sëñ Gora mu ngi noonu dafa amoon yéene sax bu carte yi pare mu ëndaale ko joxe ko fii waaye comme des na mois de juin moom des na ñu leen koy jégal ngeen gën koo bàyyi xel di nuyu Serigne Gora Gueye li Pape Mboup wax léegi doy na sëkk ci moom fédération bi bi ko sëñ As nosee ba pare sëñ Gora ñii la la ko teg ci ay loxo mu jiite ay at lépp di dox xam nga jiite dafa am solo ci sa doxin keneen ku ñëw noonu rek lay def moom ni mu doon doxee di ko organiser nit ñi di ko gis bi mu demee ba tukki bitim réew wu bi mu waree tukki woote ñu réunion jox ko keneen kooka dox bi sëñ góor ñi doon dox rek la doon dox ba sëñ góor a lépp jërëjëf yow yaa moom sëñ Modou Koumba Cissé ñu bokk ko moom moom tamit macha allah dana yàlla gën a taxawu sëñ Mamadou Madi yow da gàttal waaye damaa bëggoon nga waxtaan bu baax ndimbal la ci man tey ki ngay waxtaane ñun ñëpp moom lañ bëgg a déglu muy sayyiduna Muhammad yow sax bu ñu la joxee micro bi boo duggee ba nuyoo rek commencé bàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam façon bi nga ko doon defee tey jii nag yaag Mouhamed macha allah yal na yàlla fay aw yiw am na solo lool Serigne Moussa Sall jërëjëf teraanga la waaye nag wax dëgg yàlla macha allah daal yal na yàlla yokk xéwal yi yàlla gën a wéral nit ku nekk xaalam rek lay doxee Serigne Aliou Niang Serigne Saliou Ndiaye Serigne Talla Seck macha allah laaji borom yaaram ñu ngi am mbégte ci yéen bu baax Serigne As Thiam Serigne Atou Koule borom bés bi. léegi laa koy tooñ ñu ko sa bis bi yow daa mel ni maag sëñ aas léegi ba ñu cee génne dañ ko defar ba bis bi kii waaye dal dañuy jël nit di ko seetaan rek ci télé yi waaw yal na yàlla gën a taxaw sëñu daanu si ñu ngi am mbégte bu baax ak mu ne fu ñu jëm na naan yal na yàlla gën a wéral sunu mag nga sunu xarit waa kër sëriñ moom dama leen ñu mujjee waaw sëriñ Abdoulaye Seye jërëjëf teraanga yi bari na taxawaay yi rafet na jël sa oto indi jël sa jëmu indi dana na sëkk waaye jëlaat sa alal dugalaat ci biir waaw yaa ngi yàlla gën koo jëmee kanam rek lii lépp sant yàlla la rek sa ñaas bi ñuy dóor lii yaa ñu bëree bëri tabarka waaw waaw kon daal mbir mi mi ngi mi ngi jëm kanam waaw bi ñu ko daan bi ñu ko door a commencé ay taxi lay luwee waaw ay taxi lay luwee nit ñi ñëw ñu naan ah nangami oto lañ luwee ñi ci des xaj yi ñii ngi dugg ku demul mer waaw mbirum mbirum yàlla la ñëpp ko bëgg ku demul da ngay mer mos na mos naa am ak gàmm boo xamante ni bi ñuy classé zikkarkat yi gars yi dañoo classé ñoom Ibrahima Cissé pare am kuñ bàyyi koo nga xam naa mi may dégg fi nekkee wala ñu ma di ñu ko jigee biñ ko bàyyee ni ko yow classé wuñ la ci ñiy zikkar muy jooy dooy jooy yi lépp ndeysaan xam nga guddi gàmm ku ne yow doo zikkar waaye dangaa war a yuuxu tey moom nag yemul ci jooy daa boole génn tànt bi wut ay xeer ni gars yi rek laay xaar ku ni laa rek waaw ah guddi gàmm ñun la doo zikkar laa tabaaraka llaah moo tax gars yi nit ñi la ñuy doon sëriñ Babacar Kane ñu ngi ñu ngi am mbégte bu baax yow it macha allah ci sunu wet ci wetu sëriñ As taxawaay bi macha allah. sëriñ Baara Ndiaye teraanga yu As ñu ko maa ko def yoon yi dama bëgg nag bu déwénee mu yokk su ko defee ma yokk di nga yokk de. sëriñ Modou Ngom Diop xam naa mi ngi toog moom waaye xelam lépp mi ngi jëm ci samedi bii di ñëw xabaan borom xabaan. sëriñ maam Daawud Diop waaye ñun ñëpp a ngi waaj yàlla nañ ko fekkee jàmm sama xarit bii waaw sëñ Abdoulaye sëñ Abdou allah ñu ngi am bu baax tabaaraka yàlla yàlla gën a taxawu boo gisee ma mujjee sëñ Saada ak rakkam yi ñoom dañoo moom bés bi ndax dañoo jagleel bés bi Serigne Maodo Serigne Maodo doonoon sunu mag doonoon sunu xarit man bés bi ma am di ko taxawal ca Thiénaba ak mu ne moo ko doon waxtaan waxtaan yéen ñëpp ngeen koy fekk suñ koy waxtaanee ci xaal boo xamante ni jagleeg yàlla rek la ci am ma nag dara jugu fi boobu ba tey njaboot gi ku ci àttu rek sa xel demaat ci suñ moo la suñ saada mii di taawam di xalifaam wuutu ko wuutu ko rafet rakkam yii dar ko sëriñ Ibrahima sëriñ Daouda ba ci ñoom sëriñ Alsaan ñu ñëwul ñi ñëwul ñoom ñëpp macha allah boobu ba léegi nag xewu am dinaa dégg ñu ni dañuy fàttaliku sëriñ moom ñoom ñii ñu ñu am ci taxawaay barki démb Dakar rek ñoo ànd man moom kon yal yàlla taxawu leen barke sëriñ Maodo jërul ma naan yàlla wàcc ci yéen wàcc na ci yéen sëriñ wax na ko léegi waaw sëriñ Maodo ñëpp a ko bëgg ndax yàlla kese la moom li naan wax lépp yàlla kon bu ñu leen jaglee bés bi kenn rek mënoon nañu ànd ak ñun mu rafet ngeen def nii da di wan nii yëg ngeen seen way jur waaye yëg ngeen tamit bés bi ñu leen kon yàlla yàlla def ngeen sut ko aw fan barke alquran karim di suñu soxna yi soxna Fat Diop soxna Faamu Ndiaye soxna Yaasin soxna Awa Gueye ñoom ñëpp macha allah na yàlla taxaw leen sàmm leen xam naa li ci des mooy suñu aas rek ndax léegi wax nañ ni sëriñ euh, Mansour Mbaye sama xarit la di borom xam-xam def na fi waxtaan wu am solo wu ñëpp mën a jëriñ yonent bi danañ balligu anni walaw aaya jot lii leen ma donte benn aaya nit ñi ñoo xër ci yàlla bëgg ak mbaax ba bu mbooloo dajee dañ naan na kenn na waxal boo waxee buñ doyal na keneen wax Modou Malick Cissé ñëw li mu waxoon moom it doy na sëkk sëñ Cheikh ñëw kàddu yi mu yëkkati ñun war nañoo doy yàlla bi mu bindee doomu aadama yi da leen a dajale jël saar wu gàtt ci njàngin ak mbind waaye rëy lool ci maana yàlla ni wal asr xam nga lu ñor yàlla ba mu giñ sëñ As bu giñee rek ngeen di ngeen xam ne li muy wax ñor na yàlla nag bu jiñee wala asr te yàlla day jiñ ci lu ne jiñ ci waxtu jiñ ci julli jiñ ci garab wattiini ah jiñ ci fajar sax yàlla jiñ ne wal fajr kon lu ko ñor bam ni wala asr borom xam-xam yi ni waxtu wa ci la ci la giñ ñii ni julli gën a giñ waaye lu ci mën a am rek giñ ñu ci takkusaan lan la yàlla doon giñ dani innal insaana la fi xusr doomu aadama yëpp ñoo ci ak perte la waaw bu yàlla yemoon ci loolu nag say mit lool si daw nit ñi li ñu góor a góorgóorloo li ñu kii yàlla mi nga xam ne lu mu wax du deñ mu ni doomu aadama yëpp ñoo ngi ci ak pert nga ñëpp perte na mu def istisna waaw accepté foofu moo mbir mu nek amna amna amna accepté inna al insana la fi khusr mu illa allazina amanu ba mu des ñi gëm kon gëm ni yalla moy sunu boob moy sunu borom yalla moy wacce dogal yu neexee yu nakari yi yalla yalla moy def ci ku ko neex lu ko neex yàlla moo bind nit ñi wuutale leen benn ci melo ñii xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii tuuti coobare yàlla la ñëpp waaw sëñ bi na ñii gàtt <laughs> dégg loolu lépp coobare yàlla la ci ak faw nga gëm ni yàlla la bo gëmé loolu ba paré nga gëm ni dogal yi wacc mo xam yow da la natto nga am alal yalla la du nga jàmbaare sa morom fus déedéet yonent bi nee won allah huwa al mu'ti wa ana al yalla ay joxe man rasulullah may séddale motax mag ñi li jaare ci mom deug nga bo amé nga gëm ni yalla la nga xam ni yalla mo la xañ soo amee wér yàlla la soo feebaree yàlla la faaw nit ki gëm ko dégg nga illa allazina amanu boo yemee ki boo déggee loolu gëm ko ba pare wa amilu salihat jëf yu baax yi ñëw couleur ngëm ga ngëm gu ne daa am lu koy lu koy lu koy maa ngi wax keroog ma ni yàlla nit ki buy tabax këram da wut ku la créer plan keur bi nga wut maçon bu ñëw liggéey ko tabax ko nga wut peinture bu ñëw defal la say finition kenn ku nekk ak la muy def yàlla nak lool lépp ci melo doom adam yalla ko def allah huwa al khaliq yalla créer jëm ñi doomu aadama plan bi bi dara amagul kuñ créer nit mo gëna jafe mo jafe sax la bëgg wax huwa alxaaliq bi mu créé plan nit ba pare albaari moo tabax nit ba mel ni mel bi mu ko tabaxee ba pare al musawwir moo ñëw moom yàlla melal ko defar defar finition yi moo xam daa bëgg mu ñuul mu def ko mu ñuul daa bëgg mu weex mu def ko mu weex ak nu mu bëggee mu mel ko ni ma limoon léegi dégg nga kon nit ki bu amee ngëm illa alladina amanu wa amilu salihat lay couleur ngëm nga mooy jëf yu sell jëf yu baax yi mooy lan ñu ni mooy def farata yi ak sunna yi dégg nga def farata yi ak nawaafil yi farata yi lan la julli juróom tisbaar takkusaan timis gee woor weeru koor aj màkka joxe azaka tudd mbaati seede yi juróom yaa ngi noonu yeneen yi ci def ay nawaafil la nawaafil nag du jeex nu ko waay defee lu ci waay baax na am na ñoo xam ne bu ñuy naafila koor la ñuy naafila dañuy woor am na ñu mën a woor lu mu tàng-tàng koor gi ñëw jàll na waaye ñu ngay def juróom benn fan yooyu ci weeru sawar am na ñoo xam ne dañ koy dañ koy gàttandu gunge man nag gàttanduwuma gungewuma wax dëgg yàlla man moom weer wi rek waaye am na ñoo xam dañ koo man moom dañuy gàttandu macha allah bu jeexee dañuy gunge dañoo ñi nekkoon boobu mooy seen naafila am na ñoo xam ne naafila guddi lañ man bu ñëpp tëddee li maam borom tuubaa ni kaanu iza leylu arxa sitra za xalatin qamu siraan li ixyaai bi jannaati def naa noonu la waaw nee na bamuy wax ca euh, lay tabax goor yàlla muni arkanu baytu jami'i qawmi arbaatu mom borom touba ni tonki goor yalla yi li tabax goor yalla ñent la muni ni biha yu assasu bunyanul wilayat moy tabax neegu wilaya ñent yoy sumtum bari loy noppi bari mikk saar bari wax di bëccëg suba ngoon lu ñor nga wax lu ñorul nga wax nettali tey nettali fële laaj fii danga nangam mixaar ku nar a dem ci yàlla du ko du ko def sumtun tawilun wa juuxun tawilun du noonu la ak bari looy xiif xanaa ñuy woor a ngi noonu kon baadahu sëharu mu ni di fokk guddi bañ bu onze heures jotee ngay nelaw ba six heures du matin wala sept heures déedéet di foog guddigi gi léeg-léeg nga am ci yoo xamante ni da nga ci da nga ci def tafakkur wa sahru wa uzlatun an suyuxin bil isharati yi ñeenteel ba mooy ngay beroo góor yàlla yu ñu lay dénk ay tur yu ñuy rëkk par guddi nga di ko sikkar def la ilallah mu ñu yii ñooy tabax néegu wilaaya kon wa amilu salihat jëf-jëf bi bokk na ci naafile yi mooy di dox ak mbokk tey ñii ngi jóge kër Thiam kër Mature ñii jóge Thiès ñii jóge Thiénaba ñii jóge fële ñun ñëpp ñu àndandoo nag ñëw daje kër Ibra loolu dox ak mbokk la naafile la moo tax maam maam Sidi Hadji Malick bi loolu waxtu wu amee ci jaamu yàlla yi fa ñu daje ba bañ fay jóge xalima bàkkaar damm na ci seen kaw muy góor muy jigéen ndax lu tax lera len di wër malaa'ikullaahi laa lazimtu min al kurama xafat bi jam'ikum Tuba la wax tuba liman hadaru xadaru ku fa tew texe nga ndax malaika yene di wër way bi motax deñ dox ak mbokk ci nafile dimbalante génne alal bo soxla lol xam nga lele nga dégg ñu ni diw joxe dara ñu ni ah lam joxe de soxla na ay nit bu joxewulul soxla lu muy joxe Hmm? wa yut'imuuna taama lu ci yàlla teg ala hubbihi booy joxe bëgg yàlla nangu da ngay xool loo xam ni da nga koo bëgg nga joxe dégg kon joxante boobu naafila la yonent bi ni tahaadu taxaabu baynakum duuna kulfa seeni diggante bu ngeen di dimbalante kër gi tey borom kër gi am ñaari junni mbokkam ne fële ñu toog di waxtaan ba yàgg mu xaaj ñaari junni yi jël benn junni bi buux ko ko ndànk dégg nga naafila bu réyee ngi noonu mu dem yóbbu këram ñu togg bokk bokk lekk xam nga lu ci yonent bi seede nee na tibb ba kenn ka tibb jàllale ko ci biiram moo gënoon nga am say milliards sax tabax junniy jumaa suñ bi xoolal ab junni nga faj ci loolu am yiw wu toll wu ëpp ku tabax junniy jumaa te yonent bi wax na nee na man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna ku tabax ay uh, jumaa ci àdduna ma tabaxal la kër ca ñu tabaxal la kër ca aljanna yonent bi waxaat ni boo amul loo tabaxee jumaa am loo jox nit mu yóbbu ko këram dunde ko nee na benn cibb ba ca lekk moo gënoon nga tabax junniy jumaa isqaatu luqma fi jawfil jaai afdalu min binaayi fi jaami kon wa amilu salihat jëf ji am xalaat bu rafet nga woo sa waay jox ko xalaat mooy conseil ku nekk da ko yaw diw nga ne ah nga ne ko ah, nangam de xam naa boo defoon nangam ak nangam ak nangam dina rafet de mu def ko mag ñi dañ ko daan def ci seen biir kilifa diine bu ne da daan toog am ñetti nit ba ñeent ñun jël ñu yoral ko këram jël nañ ci exemple ci sëñ Ibrahima Seck borom yaaram keroog rek maa ngi koy waxtaane ma ni mag ñi ko waroon am na koo xam ni da koo sasoon ni ko muy xool dëkk bi xool biir kër yi néew gi doole yi ñàkk dépense li taalibe yi di indi ci kër gi taxuma pour jaami yàlla yi la ñuy rucceeku ndànk di dem ca kër yooya di fa placé li ñuy addee yi ñu indi bu tabaski masaana jot mu ni leen dee leen jiitu ci kër yi xool leen fu tabaski amul daw leen ci sama wàll ak luñ ma indil waa kër Ibra Faal yi nii ak mu ne ñu defar teranga ju tedd yób yóbbul ko seexu ca ba loolu lay jariñ sëñ Ibrahima yooyu ñu daan dajale di ko indi da sant taalibe yi ñuy rëcceeku dem ci wanag bi di ko yeewi di xool buntu kër yi fu dara yeewu rek ñu dugal ko fa ndànk wa amilu saalihaat jërëjëf wa amilu saalihaat loolu mooy jëf ay jëf yi mag ñi dañu ci daan dimbali dafa gaaw lool baal ma de maa ngi guddal waaye maa ngi maa ngi daan dafa dafa gaaw lool ci dimbali ci dimbali wa amilu saalihaat beneen ba ca des mooy wa tawaasaw bil xaq ay waay ñuy dénkante ci dëgg loo am am sa waay su ko dëgg dabee wax ko ko sër Mamadou Siré Alaaji Taala laa dégg benn bis mu wax mu ni mu nett li benn xissa bu am solo njàngale mu rëy mu ni yonent bi dafa mës a dajale saxaaba yi ni leen dama bëggoon su ma dee tukkeeti bëgg a ànd ak kenn na ngeen bàyyi ma ànd ak Aboubacar Siddiq yéen a ma ko gën a xam su bu may waxtaan bëgg a dégg dëgg bàyyi leen Omar mu tont booboo ma ci gën a ñor ndax moo tombeeg li may wax su ma waree ni nit fu ma waroon a dem bàyyi leen Ousmane mu dem waaye su ma amee ak benn bis ay maanaam ab xeex bu ma war a jàmbaarloog benn jàmbaar bàyyi leen Aliyun mu taxaw saxaaba yi saxaaba yi kenn ku nekk jaaxle ci sa morom ñu ne yonent bi dañoo bëgg nga leeralal ñu ni nga ñu tànnee lan moo tax nga tànnee ñu noonu lan moo tax booy dem bëgg a ànd ak Babacar ñun ñëpp bëgg nañoo ànd ak yow te mën nañoo ànd ak yow lu tax Babacar yonent bi nii Ababacar xam nga borom wërsëg la woon dafa bari wërsëg te tabe bu may dem tukki man yonent bi alalu Ababacar ci lay waaj ci lay wut yóbbal ci lay wut lu ma bàyyi sama kër yóbbaale ko moom te musuma soññ ni ma guddi na bàyyi leen su may dem ma ànd ak Babacar kooku mat naa àndandoo de ñu ne ko Omar lu tax nga tànn boo bëggee dégg dëgg nañ la bàyyeek Omar te ñun ñëpp ñu xam dëgg ni ko Omar xamee yonent bi ni leen xam ngeen dëgg yéen ñëpp ni ko Omar xamee waaye yéen ñëpp rus ngeen maa wax dëgg Omar nag bu ma dëgg dabee wax ma ko ak wax ko ginaar yi la yemale te ku xam Omar noonu alxaqu maa Omar xaysu kaana Omar fu mu mës a ne rek dëgg léeg-léeg sax yonent bi daal di indi dara yu Omar danaan ko sa xalaat la wala wax yu la bu jógee ci yàlla bu dee wax yu moom amul déng-déng dañuy def mais bu dee sa xalaat xaaral ñu ñu ne ñu wax ci suñu léegi kilifa goo xalaatal mu mer barki yàlla yonentu lii la daan moo tax Omar ñëpp dëggal moo tax mbedd mu mës a ba génn ko seytaane du dugg mbedd moomu ñeent fukki guddi ñu ni ko Ousmane lu tax nga tànn ko foo bëggoon a dem mënoo dem nga yónni ko lu waral loolu mu ne Ousmane dafa am daraja soo ko gisee bëgg xel mi rafet su waxee nga nangu loolu tax su ma dem fu ma war a dem dematuma bàyyi leen ma yónni Ousmane fu mu àgg ñu rus ko ñu ni ko waa Aliyu ibnu Abi Talib lu tax nga tànn ko bu xare jotee nga war a jàmmaarloog benn jàmbaar mu ne ah xaybar gaswatu xaybar gars yi yéen ñëpp a jaaxle woon yéen ñëpp a tiit xalaat ni musiba dina am te booba Aliyun dafa dafa dafa dafa dafa ramdaan dafa dafa dafa daf nu mu tudd daa wànnent waaye bi xare bi méttee ñu nar leen a gañee yonent bi woolu Aliin forcé leen ko mu ñëw Aliin ñëw yonent bi jël loxoom bu tedd boobee yonent lu mu mës mu wér mu jël ko diri ko ci kanamu Aliin bët yu weex tàll Aliin di gis bi bi bi yéefar yi yëgee ñu ne Aliyun mi ngi ci biir xeex bi ci la ñëpp daw yonent bi ni koo xam ni aw turam dàq na dàq na jàmbaar su xeexee gañe te nettali naa leen Ali ibnu Abi Talib keroog moom Fatima la ko yonent bi may wax naa ko fii daaw njàmbaaru Ali Fatima doomu yonent bi la dafa nekk ak Aliyun ba yàgg Aliyun yëg boppam ni kuy góor maa la man allahu akbar xam nga leer moo daan fees seen xol moo tax kartan lañ daan am dañ daan am fit abdullah ibnu mas'ud nit ku tuuti la woon ku tuuti la woon as nit la woon xoolal saxaaba yi buñ mësaan a toog abdullah ibnu mas'ud day dem di yéeg ci garab gi tànk yi daa sew a sew sew ndax dafa tuuti saxaaba yi di ko ree yonent bi ni leen la tadaxakuunahu wa inna saaqaahu la asqalu min jabali uhudin yéen a ngi ree abdullah ibnu mas'ud waaye billaahi tuuti waayam bii gis nga tànkam yi li ci nekk ci poids leer moo gën a diis jabalu Uhud ñoom leer lañ daan doxe Alioune yëg loolu ci dënnam ni kuy góor maa la man ko mi ngi doon def ay liggéeyam ni ko Alioune ba mu des sama bàyyi waaw ah, rasulullah ko jub Alioune ba mu des sama bàyyi Alioune Alioune yëg ci yëg ci boppam ni delluwaat ci wax bi ni ko Fatima dama ni kuy góor maa la man Fatima ni ko dama ne Aliyin ba mu des sama bàyyi Rasulullah jël mu ne Aliyin mer ci tontu gi ko Fatima tontu mu ni da koy boole ji ak bàyyam génn kër gi nag di waaxu ak fulla ju mat sëkk xoolal benn borom giléem dab ko sëñ bi yaa ma joxoon xaalis bari bi léegi benn giléem benn waay war ko ma nga kaalawu ba kenn xàmmewu ko mu ni ko eh eh Aliyin Alioune gestu ko mu ni ko taxawal xaar ma Alioune xaar ko mu wàcc dafa ñëw rek songu Alioune yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf Alioune jàmbaar la ku ko xusi laa ilaa Alioune xol bi jóg mu riir wut si waat waa yëkkatiwaat ko ñaari yoon dóoraat ci suuf Alioune songaat ko ñetteelu yoon bi mu dóor ci suuf Alioune song wan ko ginnaaw di dem waaw mais wàññeekuwul dafa continuer jëm kër rasulullah bi mu demee ba dugg kër yonent bi ma nga fekk yonent bi ferenkulaayu ci digg ëtt bi ndeysaan si kimbu tedd ba karaw gu ñuul kay daanu ci ginnaaw xeesaay baag leeraal bi bët bi weex tàll la ci ñuul ñuul set safiyun sell aliyun sukk ñoom nañ daan nuyoo yonent bi waaxu wut si ko rek yonent bi ree yonent bu réewul kenn ñi mewu Aliou nee na man man man man man ra'aahu sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf man ra'aahu bi diihatin haabahu wa man xaalatahu maarifatan ahabbahu nee na yonent bi ku ko gis ci nagu bët da ngay tiit day dal góor yàlla yi jaamukatu yàlla yi da nga naan tëll gis leen i diwa ngeen ne pourtant diw dóorewul deful dara mais xëy ba gi moo ne woon ci yonent bi Alioune ni ku ko gis da ngay tiit waaye ku jaxasoo moom dootoo bëgg a tàqalikoog moom ndax jikko ju neex ja mu jëm jub yonent bi yonent bi ree ni ko Alioune noo def ak sa waa ji nga dajeeg ci mbedd bi nga ne kuy góor yaa ko man noo def ak moom Alioune ree ni ko billaahi rasulullahi yow la woon lii ku dul yow mënalu ma ko nga gis ni Alioune ibnu Abi Talib jàmbaar la woon goo xamante ni leer ga ne ci dund ba ak xuwa ga moo taxoon mu daan doxe na mu daan doxe moo tax jox ko garaat bu rëy ni bu ma dee madinatul ilm su fekkente ni man maay dëkkub xam-xam aliin mooy bunt ba fu jaar ci aliin wa waaye yàlla nañ ko teewee ay déwén waay lii ma wax nii bëgguma ko woon wax li ma wax nii gudd na maa ngi jégalu bu baax dama ni woon damay nuyoo rek waaye dama nuyoo rek mu am fu ma dugal yàlla na yàlla def ñu teewee baat yu bari ma nga naan ma ma àggale ma àggale euh, saaro wa tawaasaw bil xaq laa nekkoon <laughs> wallaay ndeysaan mu desoon benn baat dénkante ci dëgg maa ngi doon wax ni kilifa subhanakallaa mu ñëw même boo nekkee sa kër ci aljana bëgg sëñ a seet si la ci sa kër ci aljana subhanakallahuma ngay wax daawahum fiha subhanakallahuma yàlla nañ fa nekk ku nekk sa appartement naan subhanakallahuma saa li di ñëw di la seet subhanaka allahuma bambum ñëw di ma seet si subhanaka allahuma sëñ aar di seet si Modou Goumba subhanaka allahuma ibrahima si sëñ yi di seet si sëñ saana kenn ku ne di seet sa morom soxna yi kenn ku ne naan subhanaka allahuma sa morom di ñëw yàlla na ko yàlla def daawahum fiha subhanaka fiha salaam gis nga fii xam nga nu ñuy nuyoo da sa morom نانكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات خلا نقول ده ده مثل اللي كنا لا يلا نسلام ما فهم الجنة تحياتهم فيها سلام بنا تقال لك كبار بره أمور نان فاديو صنع فاهم أندي أندي كم نسنجيرف نيولين لام أندي لين ريربي أندي لين خالدي أندي لين نعم ده ده محمد ده ده dedet subhanak allahumma teraanga yi ñëw tege boo lekkee ba pare amul kay jël bagage yi de alhamdulillah rabbil alamin bagage yi daal di dem wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin seen bi al jullit ñi li leen yàlla fagu kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll ba fi may jeexale mooy watawaasaw bis sabr ñuy dénkante ci ak muñ jaamu yàlla muñ a koy maye jotaay bii ngeen toog ca tàkkusaan ba tey ku mënta muñ day jóg dem ñi mën a muñ rek ñoo fi toog. am na ay soppay Cheikh Tidiane nekk la ñuy xaar. ba déwén bu déwénee Cheikh Tidiane rek laay waxtaane wax leen ko nee leen bu déwénee Cheikh Tidiane rek laay waxtaane Pape ubbee na ko léegi. Baabul Ilaahi la wax. Baabul Ilaahi. mooy buntu yàlla bi. rafiwul jaa wala Pape bàyyi bàyyi bàyyi bala ñu bala ñu saaraan sa. wa bil haqq wa tawaasaw bis ñu dénkante ak muñ muñ mooy mayee jaamu yàlla gii dégg nga dafa am góor bu baax danaan wax ni ñett faw ñu muñ door a mën a jariñ benn bi mooy ab sëriñ faw ngay am jotaay bu yàgg di ko jox yàlla pour mën a jariñu ci yàlla beneen bi mooy cuuraay boo ko teg faaw mu ni teg ab diir doo a mën a jariñee ba ca des mooy soxna su ne ci këram di sëy lu métti métti faaw nga toog takk sa ndigg man faa jur wali yi boo xam ne dalay teral ëllëg waaw yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko teewee at yu bëree bëri kenn ku ne na jox sa moroom loxo rek ni ko baal ma jotaay bi du nii jotaayu xéewal la jotaayu yiw la jotaayu teraanga la jotaayu naataange la yàlla nañ ko fi teewee at yu bëree bëree bëri barke alquranu karim sëñ As jërëjëf sant nañ gërëm nañ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla na fa dugg te dëkk ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag lañ doon rendre hommage tey xalifa ma ngi de Serigne Sada ànd ak Serigne Ibrahima ak Serigne Daouda waaye fekkat na fi ndax ñun ñëpp ci délégation Serigne Maodo lañ bokk ndax ñun ñëpp ko seqoon moom yàlla na yàlla yokk ay leeram te tax ci barkeem bu mel ni daayira bi su ma juumul oustaz Ali dafa mel wala Abdou Ndiaye am na lu ñu fàgg woon bu fekkee nañ ko joxe rek mu ànd ak seen kàddu ñëw su ko defee seen kàddu soog a ñëw Are you

كل ويه أدم قوافي يكون أم ترى غبا مجدم أيوة يا دنا كرم نخلا بالله لو فيك دفعي مجوي أدم قوافي يكون أم ترى غبا مجدم أيوة جيت دلك سخت نفر billaahi taal bu tàkk day fay pour yàlla naa tus du fi des wallaahi digwi leen mu ñëw ay waay da du sa kër jabaraa doom billaahi ku oomeel li la fay xoolal ñëpp ñëw sa sekkere siiru wallaahi adduna yaa ma ni bu la jëbbalee am na jàmm yéen mbokk yi ñëpp daal di lay wan ginnaaw wallahi boobu weddi kal la xoolal juróom-ñaari jéego ya ay waay juróom-ñaari jéego ya xoolal nakir ak munkir daal di liir utti suuf si la nga wallahi jaamu yàlla na noonu ay waay war sikki musa sakifaas billaahi sañ sa jóg di sàkku yi mooy bu sa jabar waxee nga ni xam maa ko def te maa yabu tey billaahi doodu dal ay waay di door a xas fàtte sarti yàlla ci sey bur bi yàlla mi di la seet wallaahi xam ni daa kon kay boo duggee bàmmeel di nga yam billaahi bis ba doo fa wax ba di lay dëddul mbirum iblis la nga man wallaay xam ne yàlla buur kon kay kullu nafsin zaa'iqatil mawti buur bi yàlla moo wax ni nanu leen jub te jubaloo wallaay ndigle mu ñëw soriwul ya rahmulaay sëriñ Maodo Babacar nelaw na yal na yàlla yokki leeram te boole ko Muhammad Rasulullaay moom mu naani Kawsara wax amiin sunu baay bu baax ba sëriñ Maodo nelaw na yàlla yokki leeram te boole ko borom tariqa bi Cheikhu Tidiane moom mu naani Kawsara wax amiin sëriñ Saada sa baay lakku na yàlla yokki leeram boole ko maama mari wone ndaan maamam moom mu naani Kawsara wax amiin kon ñu jokkatu di sëriñ Saar sëriñ bi nañu wax asalaamaaleykum nee na ñu ngi nuyu ñëpp nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dellu di sant yàlla bu baax. julli ci sangub sang yi. sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy xutbu daayiratul wujud mooy jalaal ak jamaal kon daal ñu bokk julli ci sang boobu nga xam ne lépp luy daayira jub sang bi moo ko moom te jotaay bii nag moom la kon ñu ngi sant yàlla ci loolu teg nag nuyoo bi ci suñu loxol sunu waajur sëriñ Adama Seck mu tegal nu ko ci loxo suñu papa sëriñ borom ndigal waaye ñu wesaare ko ci mbooloo mi fi teew yëpp ndax bàyyi Adama nag kenn la woon ci bàyyi sëriñ Maodo Babacar kàddoom sax nag mënoon naa yóbbaale sunu gos te sax yóbbaale na ko nag daa mënta ñàkk ñu àddu rek ndax soo waxul mën na nuru leneen. kaddu yi sax dem naa ba koy jox sëñ Ibrahima. kaddu yi dem naa ba koy jox sëñ Ibrahima. Euh, waaye comme kaddu yi cant rek la. naa ko faf jël nag. kontaan nañu lool. sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax. Euh, ñun jirimuñu. ñoon nag na ngeen xam ne jirimuñu. sama góor ga dani woon. sama góor ga dani woon. jirim mooy. jirim mooy. ku réere yàlla. ku réere te moom daa fexe. te moom nag fexe na ba. ñun ñun ñii njabootam. yàlla. waxuma la sax. taalibe bu ko yaakaar taalibe ko yaakaar. nit su bu dee sa kilifa. sunu papa Cheikh wax na ko sànq. sunu papa Cheikh Ahmed Tidiane wax na ko léegi. mu ni mu ni. ñii seen papa yërëmu leen woon. ñii seen papa yërëmu leen woon. sëriñ Adama mi waxat ko. yërëmuñu woon yërëmuñu woon de. soo musaa ñëw ci këram. soo musaa ñëw ci këram. baab toolam. baab toolam. baa fu muy liggéeyloo. baa fu muy liggéeyloo. doo xam ne ñi mu jur. doo xam ne ñi mu jur. ak ouvrier yi mu jël. ak ouvrier yi mu jël. di leen fay di leen danaa wax ni doom soo ko yërëmee mu ñàkk ni ko Pape Cheikh waxee léegi noonu la ñu bàyyi Modou defoon waaye kilifa nag soo ko amee te naxu la da ngay sant yàlla bàyyi Modou Babacar nee na du doom bu mu jur du taalibe bu mu nax ku mu nekkal rek dëgg la la jox li mu yor moom la la jox wanul woon kenn boppam yàlla la doon wane yàlla rek la doon wane. moo tax nit ñi moo tax nit ñi kenn du ko fàtte. ndax yàlla kenn du ko fàtte ndax ki mu joxoon boppam. ndax kenn du ko fàtte. lu waay wéet wéet. lu waay nekk nekk. moo xam bakkan la. moo xam bakkan la. moo xam naqar la. moo xam naqar. fàtte yàlla kenn du ko def. fàtte yàlla fàtte fàtte nag. ah moo fi am. waaye yàlla moom kenn du ko fàtte. moom fàttewu ko woon. moo tax kenn du li Pape Cheikh doon nettali li Pape Cheikh doon ko wax góor su góor gu mu saa tàng ko sec mënu ko waaw sec jaay ñu su la neexee waaye jaay ñu bu la neexee yaa ñu moom yaa ñu moom su ko defee mu ne sëñ Daouda su ko defee mu ne sëñ Daouda di nga noppi de di nga noppi de <laughs> ndeysaan waaw kon kooku mënuñu koo fay kooku mënuñu fay yàlla na yàlla na fay na ko sax dan naan yàlla na ko gën a fay papaas papaas sant bu baax yow mënuñu laa fay da ngaa bëggoon suñu kilifa. da ngaa bëggoon suñu kilifa. jamono yee ci ginnaaw. damaa nekk Dakar. damaa nekk Dakar. fajar teel. fajar teel. sama appareil sonné. sama appareil sonné. ma xool muy moom. ma xool muy Serigne As. nga xam ne xaw nga xam ne man xaw na maa jaxasoo. ndax heure bi ma ndax heure bi ma woo. mu ne ma sa papa laa gis bi mu ne ko mu ne ma sa papa ma xëy woo la. ma la. ma def loolu. ak sant yàlla. ak sant yàlla. xam ne yàlla rek moo mën. xam ne yàlla rek a mën ndax ñu sama bay bokal bari nañ ndax ñi sama baay bari nañ ñi jaboote bari nañ ñi lan motax tax lu tax nag mu xëy rek mu xëy rek jël sama bay jël sama baay xëy wooma xëy wooma ma def ko sant yàlla ma xamni ni ma xam ni nag gi jàggi ma góor gi jàggi ma lu ma góorgóorlu lu ma góorgóorlu woon war naa ah naa ko xeeb te doole ko lu ma doxit lu ma doxit war naa koo xeeb maa ngi sant ñëpp sant naa ñëpp gërëm na ñep di nuyu nag sunu baay Ibrahima Ndiaye borom yaaram di ko nuyu bu baax di ko sant bu baax ak euh, Abdoulahat Ndiaye. Serigne Abdoulahat Ndiaye. ndax kër Ibra Fall. ndax kër Ibra Fall. ñëpp am nañ góor gi. ñëpp am nañ góor gi nag. waaye nit. waaye nit bu sa kilifa génnee àdduna. bu sa kilifa génnee àdduna. jëliwoo kenn. jëliwoo kenn. ki la jël si. ki la jël si. ni la kaay. ni la kaay. ah di ko bàyyi xel nag. noonu lañ def ñoom. seen téléphone. seen téléphone. du jóg ci man. du jóg ci man. seen xalaat. seen xalaat. du jóg ci man. seen wërsëg. du jóg ci man. te loolu rek nag. mooy dundal kër gi. te mooy dooley doomu soxna. te mooy ndamul doomi soxna te noonu la ñuy def ak Babacar Seck Babacar sama turandoo mi ñu tuddee sama mambay Seck moo ma doon nuyu sàmm ñu ngi koy nuyu nuyu kër Ibra Fall gépp di ko jaare ci ñoom ñun daal kontaan nañu bég nañu wan ngeen nunu fàttewu leen bàyyi Maodo Seck Babacar nii rek la amuñu loo pli amuñu lu dul bàyyi Maodo. damay faral di wax ni damay faral di wax ni ñun suñu dund ñun suñu dund sama papa lañ ko jox sama papa lañ ko jox waaye ak demam it waaye ak demam suñu dund suñu dund moom rek lañ ko jox kon duñ jum ci moom kon moo tax duñ jum ci moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barak benn kàddoo des muy kàddu marraine bi dañ ko annoncé te ñëw waaye daf koo jox Souleymane Gueye dafa am soxla bu ko dab ñu woo ko mais amoon na yéene toog ba mu jeex mu ànd ko ak yéen président Makumba Yak suñu waajur Baye Alé Ndiaye euh, soxna Awa Gueye nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di am kontaante bu baax nag ci cër bi nga xam ne moom ngeen ko cërale bis bi nga xamante nii nit ñi bari nañ lool ngeen tànn ko ci jëmmam ju xeebu ji cërale ko cër boobu nee na nag xam na li ngeen def kontaan na ci bu baax mu ngi ñaan yàlla ñu teewe ko ay déwéni déwén nee di leen wax ne nag at mu ñëw am na yéene ngeen tudde ko ko mu ñëw comme ni ñëwaat nii kon yàlla ñu yàlla def ñu fekk ko ay déwén yi déwén euh, di ñaan yàlla it kenn bañ a manqué barke yonent bi sallallahu alayhi wa kàddu yooyu la soxna awani war ah naa leen ko wax dafa am soxla bu ko dab léegi beneen bi ci des mooy Serigne Adama dinañ mas a ñëw fii kër sëñ Ibra kër Ibra Fall nag génn fii ci biti maag Pam Mbuub ñu poñe ñu waaw ndax boo wax boo boo waxtaan wi demul ba gars yi ne doyal nañ rek dañuy defee ni man mii am na lu ma ci def wala am na lu ci pap def taw kër Ibra Fall gii bu fekkee dëgg laay wax nag doyoo luñ ci waxtaan wi de doyoo luñu moom te yaakaar naa ne ci bëccëg rek maak yow ñi ngi ci waxtaan ma ne la suñu aada tey moom boo demee kër Ibra Fall na nga leen beral loxo waxtaan ba ñu doyal waaye nag olof nee na lu yoon jeexul waa xusul du jeex sëriñ aada nee na dig na leen ko déwén incha allah bu dewee déwénee dina leen waxtaanal ci yenent bi waxtaan ci Cheikh otidiane waxtaan ci mam Ahmadou Ndak kon lool nañ ko noté ba déwén alaykum wa rahmatullah wa serigne bi dal nee mom nañ ko def ben kaddu rek ne nana nga tej kaddu yi bal bal bal dama ko jox micro bi wax naa ko leral wa kër Ndiol Fall sànq bi sëriñ dafa naa wax naa léegi fii bàyyi soxna ci jàll fii la mujj a toog def ci waxtaan mu rëy wa nga xam ne kenn ko fàtte la ma waa ki doo woo ba ñoom ñu ne ma kàddu sëriñ góor lañ bëgg a dégg loolu dañ ma xam tax wax moo tax ma jox ko ko bismillah loolu ca waaw kay sëriñ As loolu ma caabi sëriñ As nee na fii la bàyyi Cheikh tàggoo woon ak wax ni keroog bu malakal mawtu bi ñëwee ba jël sama ruugi ñu ne ay waay ji bàyyi Cheikh Ndanda nee na bis boobu na ko ñëpp bàyyi fii la ko waxee woon fii ci tànt bii te tey jii la anniversaire imam ci ijaaza Cheikh Seydi Ahmed Tidiane di ko bàyyi Cheikh Ndanda wax dëgg yàlla kon sëriñ ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wa aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël nuyoo bi di ko teg ci suñu mag ñu as mu tegal ñu ko ci képp ku nekk ci tànk bi yàlla dafa def jotaay bi dafa xaw a toogaay bi dafa xaw a metti te yàlla def na ñi waroon a wax yépp wax nañ fi wax ju am solo ndax ku déglu sëriñ Modou Mali yu Cissé wax ji wax ji mu fi wax si yonent bi sallallahu alayhi waxtaan ci alxuraan ci wal xasiri sànq rek bi muy wax naan yàlla dafa giñ ci alxuraan dama ne ko maa ngi koy tooñ sax naan ko yàlla lim giñ dafa bëri wal xasiri wa duxaa wa layli wal fajiri yàlla waxtu wu ne giñ na ko si alxuraan te te giñ yi muy giñ yëpp doomu aadama rek lay waxal doomu aadama rek te su ko neexoon bañ a giñ waaye bu demee ba giñ ba noppi nag ñi sëñ aada waxtaanee sànq ne wal xasiri inna al insaana la fi xusirin damay résumé rek damay résumé rek ndax sëñ aada wax na lépp soo déggee ñu naan bu nit waxe waxee ba noppi modérateur lañ xaw ma résumé modérateur sañ aada dafa wax dafa wax si alquran wax ju am solo bi mu waxtaanee si wan xasiri inna al insana la fi xusirin illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabri yàlla doomu aadama rek lay waxal foofu te yàlla booy xool ci alquran li mu wax si inna alladina amanu wa amilu salihaati dafa bëri waaye illa alladina الا الذين لا والعصر ان الانسان لفي عسر انك يا لا لو داغا واخ لو من الا الذين لا الا الذين موي واخوما نا غاي nga xamni amano dañu gëm yalla الذين امنوا دا خني گن نا سي تاكوسان ني دوما ادم دا كو پيرتل غاي دال دي نوكا يالا يو دا nga بنا بيندي دوما ادم بيند كو بلو سس سس تي سس چوبره te dogal yi ngay dogal si doomu aadama yaa koy dogal si doomu aadama doomu lépp loo xam ni lu wàcc si kawam rek yàlla moo ko teg si doomu aadama lu tax yow nga bind doomu aadama bi ba noppi ne ko nag innal insaana la fii xusri yàlla na ko ah illa yi nga xam ne dañoo gëm yàlla nga xam ne dañoo gëm yàlla illa allazina amanu moo tax alquran dafa yéema illa allazina amanu mu ne waxuma nag ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla bu amiloo saalihaat dañuy def lu baax def lu baax dafa bëri dafa bëri façon ndax da alxuraan dafay wax ni eh, damay yàlla dafa yàlla dafa wax ni maanaam doomu aadama ki nga xam ne dafay jàpp di julli nit ñi di ko gis saa su ne muy julli di di di wet gu suba ak ngoon di fanaan si deram foo ko fekk mi ngi kolu yor kurusam bi jaamu yàlla saa su ne nga naan kii daa bu samaan la fekk yàlla yàkkamtu na mu faatu ba mu fudd ko ëpp naa def ni waaw am na waaw yàlla ne illa allazina gaa ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla wa amilu salihaat te ñuy def lu baax def lu baax nag mooy téye sa làmbañ bi ba doo ci wax lu bon doo ko ci wax doomu aadama bu la nit rombee maanaam doo teg ci deram bi loo xam ne lu lu ñaaw la li gën a mën a dugal doom li li li mën a dugal doomu aadama safara mooy nit koo xam ne sa moroomu jullit daf laa romb nga wax ci deram bi wax ju bon moo tax yàlla ne ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma qiima itam boo bëggee lekk medd rek maanaam jëwal doomu aadama mu romb la nga waxal ko wax joo xam ne wax ji rafetul mooy ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma qiya maytan fa kon lu mu ci teg mooy wattaqullah mooy illa nga xam ne dañoo gëm yàlla wa amilu saalihaat yi dañuy def lu baax wa tawaasaw bil xaq mooy ñiy sàmmanteeg dëgg wa tawaasaw bi sabri di sàmmanteeg muñ sàmmanteeg dëgg nag mooy fépp fu dëgg taxawee da nga wax bañ cee rus kenn xam ni alxaqu min rabbikum dëgg mi ngi tukkoo ci suñ borom watawaasu bi sabri mooy gaa yi nga xam ni bu dogal dalee seen kaw dañ koy muñ moo tax yàlla ne inna allaha maa saabirina allazina isa asaabathum musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna yàlla ne ulaayka alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaayka humul muhtadoon moo tax ma ni illa lazina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salaat ñuy def lu baax wa tawaasaw bil xaq ñuy sàmmanteeg dëgg wa tawaasaw bi sabri ñuy sàmmanteeg muñ mooy bu yàlla dogalee maanaam sa kaw lu metti nga muñ ko xam ne ndogalu bi yàlla la bañ koo teg doomu aadama ndax léeg-léeg nga xëy feebar rek daal di koy jiñ sa sa sa borom ne diw diw feebar bii ma dal nii maanaam si diw la jógee kon su fekke da nga don jaamu yalla di fanaan sa kurus ki suba ak ngoon hmm? ba nit ñëpp naan ab xut bu samaan la manam yalla wacc ab febar sa kaw rek nga jiñ ko doomu adam kon la yalla don wax nan muñ gogu kon muñ gogu yow boko tos wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi sabr manam bu dogalee tamit ndokol gu met ak lu di doon rek manam nga gëm ko loolu la yàlla digal doomu aadama waaye nag dafa jafe maanaam muñ dafa jafe dëgg dafa jafe ndax nee na yàlla dina la booleeg doomu aadama boo xam ne di nga am kersaam di nga ko rusoo rusoo rus ba bu la waxee dara nii sax da ngay sëkk rek raay sa bopp waaye doo doo ko mën a wax li nga xam ne kii dëgg la moo tax moom yàlla ne watawaaso bil xaqi watawaaso bi sabr waxtaan wi nag daanaka dafa dafa gudd waaye boo gisee ma doon barkeelu nii rek bëgguma si woon sax yëkkati kàddu waaye sañu aaf moom su dee ma da yëkkati kàddu du ma def lenn yëkkati kàddu nag waaye na solo sañu aada wax na moom wax wax naa ak wax a dégg a wax leneen leneen lu raw la yonente bi nag moo mel noonu moom foo ko tàntalee boo ko tuddee rek di nga gis mu daanu saako naa ngi Ibrahima si ndeysaan daa keroog daanu sax ndeysaan di jooy jooy métti moom dafa bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye moom moom boppam la wane waaye rasulullah moom ñëpp ko bëgg yonent moom ñëpp ñëpp ko bëgg ñu ngi jégalu nag si kàddu yi bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañu ko tee ay at yu bëree bëree bëree bëri di leen pam bu baax la ko ustaas baax ñoo ngi leen ziar rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yow moom sax nga di yéene ñu ngi ñaan yàlla heure bu ñëwee rek yàlla nañ la fi fekk rek yàlla dina defal wér la defal tawfeex la defal taysir di liisal ko wax bu heure bu ñëwee rek day mën di daal bu baax mu génn xaalis waaw ndax xam naa ne am nga yéene bi waaye yàlla yàlla defal na yéen waa waa kër Ibra Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di ziar suñu xol sedd na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon ñu déglu Sëriñ Yaas nee na gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci sangub sang yi sayyiduna Muhammad man mii nag maa war a teeru gan ñi man mii maa war a dalal gan ñi ah kon man awma kàddu Mouhamadou ma Cissé jaar na fi léegi alxaaji Adama Seck jaar foofee Serigne Sada mu bàyyi Serigne Maodo jaar foofu sama rak Serigne Gorom Ba Cheikh Ahmed Tidiane jaar foofu waaw man kon lu may waxaat xanaa kay sant rek gërëm rek ñaan nag man ba bés bi mel nii bu doon man donga du mel nii alaaji adaa ngi Serigne Gora ngi sunu ñaari kilifa ba sunu ñetti kilifa ànd nañu ak ñoom Serigne Saliou Ndiaye borom Makka ak Médine Serigne Aliou Niang nekk xalifa Baye Mor Niang As Thiam moom ci kilifa la bokk di mi ngi nii toog sans wet sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp Modou Koumba Cissé ñi ngi lay sant bu baax Alaaji Góora Gueye mënuma lim mbay Babacar Kane ci borom yaaram ñañ Ablaye Sey Rasoul nee na atu xulle samos sama rakk jële muy Baara sama promotionnaire Baara Ndiaye bu bàyyi Ibrahima Ndiaye jàmbaar ja nee na bi taxawee ci station bi léegi daa yëkkati xaalis bu bari ne ma maa ko def ci yoon bi ñaanal ma yàlla ba bu déwénee ma man lu ko baara boo liggéey yàlla nga man lu ko sa waajur wu taddoo daa jeexoon tag ci yoonu Cheikh Thialam nee na kii nag xëy nag nee na wat nag ah ca watit rek danga ko doon njaay jërëjëf yàlla yàlla fay la yiw Talla Seck président daayira Muxtadin bu Thiès ah alaaji Moussa Sall nag moom Moussa ren yàlla bu la fi avion yi bàyyi yàlla nga siyaar yi yéen nee na sëriñ Ibrahima Cissé moom it ci sunu kilifa yi la bokk moom it ndeysaan daa jeex tàkk ci sayyiduna Muhammad soo bëggee dara ci moom rek ne ko sang bi rek sallallahu alayhi wa sallam lu mu am ni ko yalax jox la ko ndab nag bu feesee ah tuuru nag nee na ndabam nag ndabam moo fees ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ Ibrahima sant suñu xarit sëriñ Abdul Aziz jóge ba kër Thiel àndoon ak maam Góor Silla mi nga xam ni moo toogal fii monsieur le maire Augustin Tine Abdul Aziz ngi lay sant ñi ngi lay gërëm yal na la jàppale sëriñ bi daal day rek sama xol sedd na waa kay Ibra Fall macha allah président Souleymane Gueye jox joxoon na leen drapeau bi de damaa xamul ndax da leen koy wala na ko Souley nee na drapeau bi mi ngi ci kër Fall waaw sëriñ góor ne fii moom sëriñ bi ñuy wutatee drapeau fii loolu na ñi ma ko loolu seen i wax a sec addil xaw ko dese <laughs> waaw tàggkat yonent yi sëriñ bi sant na leen imaam oustaz muhaddam bay ali Ndiaye ngi lay sant ñi ngi lay gërëm bis bi sa bis la bis bi yaa moom bokkoo ko kenn fa tabarakallah yow moom da ngaa xër ci Seexu Canaba bu ñu toog fii ba fajar doo yëngu doo raf jërëjëf Njaay Modou Ngom Diop alaaji Modou Ngom sëriñ bi ne foo toogee Modou Ngom Diop nee na yow moom dañoo bokk maam bokk bàyyi maam Amari Daak Seck keroog ba muy wàcc dafa joxoñ sa maam ni ko waajal ñëw wuy ji Cheikh Oumar ak yow ba nëgë moo nekk ci fu nu jëm nga nun jël sa alal dina jox jërëjëf Diop borom la kat mais incha allah ca xabaar ah nuyu suñu télévision yi nga xam ni mooy les télévisions de Mame Omar Ndak Seck Thiénaba TV Thiénaba 24 sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm ñoo ànd ak sëriñ bi ñëw bàyyi ji bi sekk moom ci suba la ñëwoon ni mooy jiitu sëriñ bi fi lay yendu fa tabarakallah ba toog fii daanaka xanaa bi fii la julee timis soog a dem ndax nag li mu seq kër Ibra Fall ak ni mu fi bokkee fa tabarakallah sëriñ baa ngi koy sant ñu ngi koy gërëm nee na ci suba la ma woo ni ma dama lay jiitu sama auto daa paan waaye oto lay jël taxi lay jël jitu la fa ba nga ñew ma wàcc la saafante yow soo ko jere jox bay ji bi yalla fay li yu kon dal nu talal loxoy sant na nak sama soxna yi ma nak, nag sëriñ di gërem lol serigne ngi di sant way mi ngi len di ñaanal yalla Euh, Mouhamed Diallo Mame Talla Dieng moom nag day sàll Mame Talla moom damaa xam yàlla na yàlla fay la yow seen kilifa gu bees gi ñëw nekk RTS yàlla na ngeen juboo yàlla na ngeen déggoo nekk benn waaye nag kii yàlla dogal tey mu mu réew mi muy suñu président bi di Bachir Diomaye Diakhar Faye yal na yàlla fay ko yow te jàppale ko yal na yàlla jàppale ko nii mu tàmbalee daal sëriñ sëpp kontaan nañ ci yal na yàlla gën ko jàppale di yal na yàlla gën ko aar yal na yàlla gën ko sàmm ba li mu yéene Sénégal yàlla defal ko ba defal ko sax lu kawe jotam kon ñu tàllal loxo yi ñun ñëpp ñu tàllal loxoy waaw sëriñ bi sant na la sécurité muy Samba Jabare ak maam taala ñu ko bokkal ñëpp moom it yéen ñoom it yàlla na yàlla aar leen ci barke yi bi sallallahu alayhi wa sallam Pape Abdoulaye Boub jërëjëf ca tàkkusaan ngeen ñëw taxaw taxawaay bu rafet ba lépp rafet yow ak Moustapha Dieng alxaaji Tamimu Mouhamed Bachir Mbow Talla Fall Mbow nee na Bachir sax نانا محمد مام لاجي سا دا يو دانيل لاجي لاجي والله يلا خنا بو ناخ سما جاي دا نيو خير تي شيخ سيدي احمد التجاني با بوتي وي كان بي تي محمد يالنا يالا فايل يو نانو تالا لوخي نانو نيالال نك سفوري الله جي مصابو اب سفور ها آه، داول شيطان كامل bu la bëggee testé bu fajar jotee ba nii ñibbi dana wax yow yow chauffeur bi naka gàmm gi boo ko ne gàmm gi daf toj nga ko mun la yow dàq naa la ndax yow ab chauffeur warul toog di xool ba samaan set te nag gis nga péexum fajar ci chauffeur gam may te boo nee gam may li oh nañ sëriñ bi mi ngi sant sëriñ Ibrahima Ngom kooku nee na moom waaru biir la da koy fekk ne nee na sëriñ Ngom 5 heures 17 la taxaw ci pont taali rajo dañu xaar dañu xaar banu aksi ah Cheikh Ibrahima kenn mënu laa fay jërëjëf xalifa ni ngay bëggee la jaam yi jaam yi kontaan ci yow yal na yàlla bëggale la noonu samedi passé rek ah nee na juróom-ñaar fukki mbaam la dajale Cees gi course mbaam bu rëy keroog damaa ne ba sonn ah soixante-dix mbaam nee na daam ñetti mbaam benn yii benn bi jomaay la bu sonk benn bi sonko la tudd <laughs> benn bi Idrissa Seck waaye biñ la fër ko raw waaye jomaay raw jomaay <laughs> raw biñ ne birit jomaay raw waaye waaye jomaay man ca kanam kon nag dana def ñaan nu tàllal loxo yi na kenn ku ne jàng Fatiha li ci sa nga jàng Fatiha ci sa xol ayatul kursi ci sa fallaxi ak naas yi ci sa xol suñu paree tëjee ko salatul fatihi yàlla nañu fekk ni amin amin dugal leen soxla yi te bàyyi wax bi te wax amin bàyyi soxla Tijaan daan wax naan ci ñaan la bokk amin والهادي إلى صراط المستقيم آمين يا رب الله وبنا وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الناس وسلام على رسول الله والحمد لله آمين يا رب يا رب كنت يريدون هذا مكان مانكي تبعت سيدنا محمد خلا آدمي خلافة ملكي